moo gën a sa ci euh, bopp xibaar yi nga jukkil ñu ko euh, ginnaaw loolu aussi di leen si euh, toftal la li nga xam ne nag moo di ay yaatal yu am solo alors Daouda bu fekkee baax na nu daal di koy doore ak li nga xam ne nag moo di yoor yoor jërëjëf bu baaxee ñu jël la nga xam ne moo ci gën a fës si yéen ah, dañ koy tàmbaleek euh, journal bi nga xam ne moo di euh, journalu Saliou Gueye bi di yor yor mhm. moom li mu xatee si xatam gu njëkk moo di daal élection législative yi nga xam ne moom la ñu fas yéene jëm euh, ca 17 novembre 2024 yéen kaay bi lam ca wax ma di fi ñu toll ni daal Barthélémy Dias hors jeu yéen kaay bi nag lam ca wax moo di fi ñu toll nekk Barth moom bu ñu xefulee ay mbiram moom dañ ko koy nettali si élection législative yi ndaxte moom moomee naaru ca cee dem réew mi quotidien dañu jël benn yéeni kaay waxta la ci gën a fës réew mi quotidien moom la jël réew mi quotidien moom ni mu xatee si xatam bu njëkk booba tey ñu doon laaj projet am na amul a jàppal ni daal bu la 14 jotee le président de la république euh, le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moomee dina teg référence yoo xam ne daal politique publique ba moom la jëm jàppal nag yéeni kaay bi lam ca wax moo di fi ñu toll ni plan Sénégal émergent bu Macky Sall boobee na ko ba mu xóot euh, suul ko euh, fi ñu toll nag la mu andi moo di daal euh, Sénégal boo xam ne day tàmbali ca 2025 jëm ca 2050 moo di askan woo xam ne kenn ku nekk dina gis boppam. dañu jël yéenekaay bi nga xam ne moom la jëm zone nord bi nga xam ne daal mën nañu waxoon ne titre foncier wu euh, Sall Ngaari Lom Tooro Bour Guédé Macky Sall moom moomee daal moo ko moom yéenekaay bi nag lam ca wax moo di fi ñu toll nag boo xefulee euh, titre foncier googee daal dinañ ko hypothéquer la ko waral daal moo di fi ñu toll nii euh, ki nga xam ne nag moo fi nekkoon ancien ministre euh, di euh, maître Malick Sall moom moomee daal dafa démissionné ba pare menacé boycotté li nga xam ne daal mooy yi nga xam ne daal moom la jàpp ne fañ ko teg baaxul waaye nag fañ toll nekk Macky Sall moo ngi xool nan lay boolewaat li di zone nord googee nga xam ne da ko jàppe woon li nga xam ne moo di titre foncier ba tey si le quotidien moom la ñu des si le quotidien leneen loo xam ne daal moom la xëtee si xëtam bu njëkk daal moo di politique protection sociale la fi toll nekk Bassirou Diomaye euh, euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye lam ca bëgg moo di ay réforme ca beneen wet ba ba tey le quotidien leneen loo xam ne mën nañ ko jël euh, si wàllum Aliou Cissé googee nga xam ne daal mën nañ jàpp ne kan moo ko nar a wutu bu ñu sukkandikoo daal si Augustin Senghor ne nañ bu ñu xafulee daal consommation locale la ñu am moo di ab doomi Sénégal la na la doon l'évidence l' évidence moom la ñu jël l' évidence la mu xëccee si xëtam bu njëkk fi ñu toll nii daal ah, Bougane Gueye Dany moom ak ñi nga xam ne moom la ci ànd la gëm sa bopp de mën a jàppal ne ñi ñuy woowee les cadres sa bopp ñoom ñoo ne daal ñu génne def réplique bu saf saf bu jëmale ko nga xam ne moo di waa Pastef rawatina si El Malick euh, ki nga xam ne nag moo di Moustapha Niang moom ak ñamu àndal démb jàkkaaroon nañ gouvernement bi nga xam ne daal moo fi nekk ne leen kaay lañ leen wax ñu si wàllum ASER wàllum ONAS si li nga xam ne moo di wàllum eurobond waaye nag si li nga xam ne daal mën nañ ko yéen bi ngeen ñëwee booba tey am na ay scandale te kenn ñemee koo tudd l'évidence ba tey leneen loo xam ne mën na koo jël moo di fi ñu toll li nga xam ne moo di jàmm ak njëriñ ak li nga xam ne nii Amadou Ba ba ca Macky Sall ko ca dem daal am na ay jafe-jafe la ko waral daal moo di ñu bëri ñu nekkoon ak ñoom dañoo jàpp ne fi ñu leen def si liste yi moo baaxul a fës l'observateur moom la mu xatee ci xata bu njëkk daal jàppal ne lu doy waar loo xam ne daal mën nañu wax ne daal moo xew ci yëmbal ndaxte nee na benn aaw mu jël li nga xam ne doom bu am 14 mois bu euh, doomu ñaareelam la jël dugal ko si li nga xam ne moo di teen yéen kay am nag lam cox fi ñu toll nii daal aaw daal defati nañ seen i mënin loolu la l'observateur wax ba tey reddition des comptes leneen li nga xam ne nag wax moom lu mu ci ñëw mooy nag jàppal ne Macky Sall moom ak i ministre am daal bu ñu xefalee euh, toll nag euh, bu ñu xoolee la moo tax ñoom ñooñu ñu bëgg am ay député ndaxte dañoo bëgg a ralentir machine bi nga xam ne daal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko yor nañ ko ndaxte dañuy bañ yet ba dal leen bu ñu amee fi nga xam ne moo ca majorité yéen kay nag leneen li nga xam ne moom la ca wax daal moo di haute cour de justice bi nga xam ne daal bëgg nañ ko teg boobee daal bu amee jàppal ne Macky Sall moom ak ña moo àndal dineen am ay jafe-jafe libération moom la ñu jël moom la mu xëtee si xëtam bu njëkk daal jàppal ne scandale la wala mafia boo xam ne loolee si ay chèques yoo xam ne dañ ko falsifié yéen i nag la di daal benn agent trésor boo xam ne turam ñu ko gën a xam si Mansour Kane moom moomee nag dafa defar ay faux cachets yoo xam ne daal mën nañ jàpp ne day bàyyi ba ñëpp wa ba ñëpp wàcc moom moomee daal mu maanaam imité li nga xam ne moo ca chèque wala lu luubal ca koppar ku bëri L'As quotidien. L'As dañuy ah, dañuy jël moom la mu xatee si xatam mu njëkk moo di fi ñu toll nii nag Barthélémy Dias le maire de Dakar fi ñu toll nii daal euh, boo la daloon ne daal moo di yeewi askan wi atum 2022 moom moomee daal moo ko nar a dal a de yeewi askan toll nii nag bu xefulee li daloon Ousmane ak nga xam ne daal moo di euh, liste boobee nga xam ne moo bëgg dem élection euh, législative 2022 moom loolee daal moo ko nar a dal ndaxte fi ñu toll nag bu nag moo di ñëpp xam nañ ne dañ ko daanum ci l'affaire Ndiaga Diouf Walf moom li moo di fi ñu toll ni wàllum FMI daal ca Dakar nag bi nag lam ca wax moo di fi euh, euh, gi nga xam ne nguuru Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko daal euh, fi fekk toll ni daal jàppal FMI nag fas yéene naa ñëw fi nga xam ne moo ca Ndakaaru xool mbir yi nan la demee. le témoin quotidien le témoin quotidien la ñu jël le témoin moom la mu xatee si xata mu moom la ñu fas yéene jëm ndaxte fi ñu toll nii dafa jàpp ne moom moomee nga xam ne gaal bu dugg ci gaalu mbëggeel wala ga xam ne daal ñoo nar a dem ci élection gaal googee daal dafa nar a diig ndaxte dafa jàpp ne gaal googee daal bu nekkee Barthélemy ma ko jiite moom moomee dafa yegg ca ndox ba jàpp ne du baax Anta Babacar Ngom Cheikh Youm Déthié Fall Bougane Gueye Dany ak ki nga xam ne daal moo di Pape Djibril Fall yéeni kayam nag lam ci moo di fi ñu toll nii ndax nekku jurisprudence googee

moom ak ñamu àndal daal euh, déposé nañ seen mémoire de défense ak li nga xam ne daal moom la takku wàllu duggal les ko dañu jël beneen yéen kaay waxtaan la ca gën a fës dañu jël yéen kaay bi nga xam ne moo di Les Échos moom nag dafa ñëw di dëggal li nga xam ne daal moo am fee nga xam ne moo ci yëmbal noor moom nag la mu ca wax mooy euh, kenn nga xam ne moo di euh, doomu wujjam dugal ko si li nga xam ne mooy ca teen yéen kaay bi nag la mu ca wax moo di fi ñu toll ni xale boobee ko tuddee woon yéen kaay bi nag la mu ca wax moo di fi ñu toll ni euh, soxna soosé daal ñu ngi koy ne moo ca desee féete si wàllum sport ki nga xam ne daal moo di euh, président fédération sénégalaise de football di Augustin Senghor moom nag euh, kaddu yam ca yëkkate moo di ginnaaw gi nga xam ne Aliou Cissé daal moom ak ay mbiram euh, jeex na ak li nga xam ne moo di footballum Sénégal maanaam ki nga xam ne moo di Augustin Senghor moo ngi dalal xelu askan wi lam leen wax moo di fi ñu toll nii bu leen am jeexe jaaxe jàppal ne daal kii di remplacer Aliou Cissé ab sénégalais lay doon point actu dañuy jël point actu wax ca la ca gën a fës euh, point actu moom la mu xatee si xatu mu njëkk daal moo di fi ñu toll nii Macky Sall moom ak ña mu àndaloon fi ñu toll nii nag jàpp nañu bëri dañ ko Karim Sall Moustapha Diop Maguette Sène ak ki nga xam ne daal moo di Issa Sall ñoom ñooñu nag ñëpp ay tête de liste lañ nag lam ca wax moo di fi ñu toll nii ndax départ ndax départ yooyee narul andi jafe-jafe ki nga xam ne daal moo di Macky Sall yéene kayam nag lam wax moo di fi ñu toll nii ndax mën nañu waxati Macky Sall amatina poids politique critique duñu jël critique critique la fa la ca gën fës moo di Doudou la ca andi Doudou moom mi nga xam ne daal moo jiite woon AIBD ginnaaw gi nga xam ne El Malick Ndiaye yëkkati na kàddu jëmale ko si li nga xam ne daal moo di AIBD noonu Ka moom na kàddu jëmale ci El Malick rawatina kàddu ya nga xam ne moom la ci andi ndaxte dafa jàpp ne loolu nga xam ne El Malick moom la wax du dëgg tey nag boo nekkee ministre boo demee bay génn rek di wax li ngay wax war nga koo xoolaat bu baax nu daal koy jeexaleeg lii di Vox Populi. Vox Populi moom lañ koy jeexee moom naka la mu xëtee si xëtam mu njëkk daal moo di élection yi nga xam ne daal moom la ñu jëm yéen kaay bi la mu xëtee si xëtam mu njëkk fi ñu toll nekk euh, bu ñu xefulee dëgg-dëgg jàppal ne Barthélémy moom ak ñi mu àndal nar nañoo am ay jafe-jafe ndax la daloon Ousmane Sonko ca tête de googee nga xam ne jàll woon ba suppléant ñoo jàdd yéen bi nag la mu ca moo di fi ñu toll ni daal ginnaaw gi nga xam ne am na coalition xam ne ñoom ñoo ñëw ñoo dugal recruté ñu bëri jàpp ne liste Barthélemy Dias googee daa narul jàll ndax Barthélemy jërëjëf Daouda di la jaajëfal bu baax a baax di am mbégte rek di ànd ak yow uh, ci li nga xam ne nag moom di la revue des titres uh, di la sant di la gërëm Daouda sànq maa ngi dégg ngay junj benn benn journal voilà l'observateur uh, li nga wax ni moo xew fële ca yëmbal doon na lu doy waar journal bi ngi nuy xamal ni benn awo moo daal Euh, jël bébé boo xam ne ñaareel bi moo ko moo moo ko moo ko jur euh, mu am 14 mois daal di koy jël sànni ko ci li nga xam ne nag moo di ci benn ten ba pare daal di daw pour l'instant kenn kenn gisugu ko euh, daaw lii moom doy na war di. réew mi ñu nekk damay réew mi dama dama na dama naan ndax réew mi xolan fi te te li ci gën a doy waar li ñu aawa bee ko def doomu ñaareel ba te li ca doy waar mooy aawa bi moom lañ ko